ay ci salaamaaleykum am téléspectateurs yi ñu seetaan ñuy amaat mbégte ak contentement saa su nekk di jàkkaarloog yéen ci seen émission seetu bi waaye nag ku ne xam na ni tey dañoo waaxu ndànk daal di jëm fi nga xamante moom mooy univers bio ndindi kër gala sa nekk ci gàddaay naa la ki ma ku ma koo xamante ne nii c'est pas la première fois suñu borom def ñu jàkkaarloo dama jàkkaarloo moom ay at yee weesu macha allah lépp lu ma fa jaayoon rek lépp jaar ma del si waat seet si waat ko tey waaye nag fi ma ko seet see tey dafa spécial ndax ku ne xam na ni dama ko seet ci fi nga xam moom mooy seetu askan bi di TFM lepp lu way bëgg jallale ci lu baax rek da ngay ñëw jege ñi nga xam ñoo TFM ñu fessel lako wonel lako ki nak kii du ko ñuy présenter fi ci Sénégal parce que ku ne xam na ma sha allah xam-xam ma ci jëf ci li nga xam ne moom mooy bio dama koy ak ñent ak mu nuyu leen ñu dal di porter su li nga xam mo suñu waxtaan nuyu na la suñu Modou lañu Bara Fall waaw jërëjëf soxna ko Collé ma ngi lay fay dina wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa ma sha allah di bëgg ak di kontaan ci sa dellusiwaat ci kër gi ci boutique univers bio ndindi kër galas nekk fi ci gàddaay nekk ci wetu Sandaga gàddaay vraiment ñu ngi bégaat di kontaan ak yéen di gën a ànd ak yéen ci suñu partenariat suñu boutique bio bi bëgg ci liggéey ak yéen nag bu baax barki borom bu baax incha allah macha allah ndindi kër galas du ay photo du ay caaxaan dama ko seet si woon ca ana yee weesu mu am ay produits yu am solo yoo xamante ni da ko présenté askan bi waaye képp ku fa dem rek rëccu woo ko kon daw si leen gaaw seetse ki nga xamante moom mooy Ndindy Kër Galas euh, fii nga xamante ni moom mooy cité gàddaay li ma njëkk a tàmbali ci moom nag dafa am lu am solo loo xamante ne ni askan bépp dañ koy jooy xale yu góor yi ñi seen i gel foonatuñu leen jigéen ñi ñenn ñi tamit seen faat fasalika maa ngi jéggalu tuub waaye dafa fekk ne mbir mi il faut ñu dugg ci baaraam pour nit ñi mën a wax carrément lan la ñu bëgg a wax dañ leen indil gaam boo xamante ne nii mauvaise haleine la sëñ Modou Lamine Bara Fall waaw soxna Ami Collé jërëjëf comme ni nga ko waxee Bitu Univers Bio moom dafay dox ci lépp li nga xamante ni mooy li askan bi di jàmbat bi mu nekk seen jafe-jafe te jamono ji ñu bëri xam dañuy faral di laaj jafe-jafe bi nga xamante ni mooy ay produits bio naturel cent pour cent bio yi nga xamante ne day faj mauvaise haleine ndax mauvaise haleine dafa nekk li nga xamante ne dafa sonal nit ñu bëri dañu am xeetu démb te ñun dañ ci am ay traitement bio naturel amul toxique amul chimique naturellement luy fat mauvaise haleine bi mooy poudre bi lu ñuy brosooro mu dindi sa xeetu gémmiñ am na ñi nga xamante ni seen bëñ dafa kadam dafa chocolat wala dafa nekk ay bañu bañu bañu kawlak ñu koy waxee wala bañu njaareem loolu itam produit bi moo koy faj mooy bu jaune bi mooy weexal bañ totalement mais en même temps gamme bi dafa àndaale en même temps bain de bouche ci kàttan yàlla ak baaxam ak yërmandeel fu mauvaise haleine bi mën a jóge ci sa yaram rek dina ko mën a faj ñenn ñi dañu am odeur corporelle ñi ci des dañu am mauvaise haleine bi nga xamante fu nekk mën ko jóge ci biir beeg ci put beeg ci ulcère rek ci estomac lépp rek garab yi gam bi da koy faj généralement incha allah rabbi muy gam bi nga xamante ni moo baax pour wàllu mauvaise haleine ay traitement bio naturel macha allah ma gisaat fi leneen loo xam ne moom it gaam la euh, di li nga xam dafa sonal ñu bari euh, rawatina ne ñoo nekk ci oto yi di togg 24 ñi nga xam ñoom ñooy tayee bi parce que ku ne xam ne émérite ñi muy sonal mooy di moom nag da ci am solo am importance mooy li nga xamante ne moom mooy gaamam bu am solo bi nga xam ne fajul lenn lu dul émérite sëñ Modou Lamine Bara Fall gaamu émérite bi moom lan la waaw soxna Ami Collé comme ni ñu ko waxee léegi rek euh, gaam pour wàllu émérite muy traitement bio pour émérite comme ni ko soxla am na benn pompe spray bi ne da koy pompe sa ginnaaw fi hémorroïde bi di génn. am na itam pommade bi nga xamante ni pommade bio la bi nga xamante ni macha allah rabbi day fu mu génn mais en am garab bio bi nga xamante ni itam dafa baax pour bépp nit bi nga xamante ni da am hémorroïde moom moo koy faj ci biir ak bu koy faj ci biti muy bi ak pommade bi ak huile ñaar moo koy faj ci ginnaaw comme gamme bi nga xamante ni mooy faj hémorroïde définitivement ba dootul waat dafay faj généralement ñu bëri soxna Ami Collé hémorroïde daf leen sonal te dañ ko bëgg faj bio naturel macha allah rabbi sans intervention chirurgicale parce que ñu bëri dañuy mujj dem sax bañ leen di opérer wala ñuy jël ay garab yi nga xamante ni te du leen jëriñ dara te ay garab yi cent pour cent bio la amul benn danger da ngay diw sa ginnaaw rek fépp hémorroïde bu mën a génnoon dina ko dindi ci kàttan yàlla ak baaxam ak yërma doon ak aminu Serigne Touba fii ci Ndindi Kër Galas nekk fii ci macha allah j'espère bien faire traitement bu gaaw la incha mi ngi noonu ñu daal di jubluwaat ci leneen waaye ñi di Kër Gallas bi dañ leen bëgg a jot dañu leen di jot ci 77 160 93 93 77 160 93 93 nekk fii ci Cité Gàddaay su dee amoo possibilité pour mën a ñëw livraison bi dafay daal di am wootee rek ci numéro bi wax li nga soxla loo mën ci sori sori sori ak foo mënti nekk ci àdduna rek mën nañ la livrer bagage bi ñu daal di jublu ci li nga xamante ni moom moom it sonal na askan waaw soxna Ami Collé comme ni ñu koy waxee univers bio moom dafay dox ci lépp li jëm ci wàllu bio ndax dañu am benn pommade comme ni ko gisee nii moom it tube la tube bu macha allah liggéey bu rafet moo ci nekk bu esthétique sax macha allah garab yu baax moo ci nekk crème la fépp ndoxum siti mën a génn ci sa yaram ndax ndoxum siti day génn ci yaramu nit ñi dafay yàq lu bari ci yaramu doomu aadama ñenn ñi seen weer ñenn ñi ci lu bëri yàq na ko ci seen yaram tube bi nag foo ko diw ci sa ndoxum siti incha allah rabbi garanti dafay fermer ba mu dañ ci kattan yàlla te dafa ànd ak garab bi nga xamante ni moom la ñu naan amul góor amul jigéen unisexe ñëpp ko mën a jël mag ndaw xale ñëpp a ko mën jël képp ku ndoxum si te jaaxal rek ak ku munti doon mhm. xefee la jokkoo ak univers bio bu ndindi kër galas nekk fii ci gàddaay cité gàddaay ci wetu Sénélec bi numéro bi nekk 77 160 93 93 77 160 93 93 comme ni ko waxee léegi jëm am na ay livraison gratuite foo mën a ci àddina daañu xefee nan nga ci mën a jotee boo jokkoo ak ñun daañu la ci dimbali ba nga jot ci traitement yi gratuitement incha allah. incha allah mi ngi noonu ma daal di tiimaat beneen boo xam ne tamit xam naa ne ñor nañu bari ndax ku ne xam na ne góor dañ koo ràññee lan lañuy ràññee góor karawu sikkim c'est très important ci góor moom na mën di ci ay produits yoo xam ni tamit gaam la lan moo waral li sëñ moor Modou Lamine Bara Fall waaw sunu Ami Collé ba tey rek euh, xam nga rek yow moom da nga bëgg lu baax te bëgg sa mbokk góor ñi bëggal leen lu baax yow da nga leen gëbb góor day mhm. am karaw waaw góor day am karaw macha allah góor dafa am karaw dafa am bar am moustache am karaw bopp macha allah lii nag huile la bio naturel huile la bi shampoing la bi ci des crème la ndax itam karaw pour que bëgg mu ñëw il faut que nga am shampoing ndax nañu bàyyi saabu yi ñuy raxasee seen sikkim dafay dam mhm. shampoing bi moom ngay utiliser pour karaw bi mën a ñëw normal mooy raxas karaw bi huile bii lay àndal muy huile huile barbe bi bio naturel ak crème bii lay àndal muy crème itam bio naturel ñoom ñett la ñuy composé mooy gamme bi xam te képp ku bëgg sa karaw ñëw moom moo koy faj incha allah rabbi kon sama mbokk xale yu góor yi mbokk taalibe yi mbokk baay faal yi bëgg karaw carrément fii la bëggatuñu kenn ku jàmbat ni dañu am karaw problème karaw yaa xam barbe la yaa xam karaw bopp la noo ko bëggee rek contacté ñu ñëwal fii ci gàddaay incha allah rabbi suñu boutique univers bio boo ci wootee rek daa ci mën a jot ci suñu traitement yëpp en même temps dañuy profité waale rek ndax fii moom. am na leneen sa lu ma fi gis ma mhm. loo xamante ni xam naa ne ñor na mhm. bi moo nekk nii bi moom benn crème la macha allah neex la am set na macha allah dafa dafa maase dafa dafa dafa dafa am mhm. macha allah day dindi lépp luy vergeture ci sa moom it la comme Sénégal yi dañuy bëgg dox ci bio nit ñoo bëgg bio. nit lépp looy def rek bu nekkee naturellement rek macha allah te nit ñi dañ koy bëgg. fii lu ñu fi def bëri na soxna Amy Collé xëy na temps bee ñu ko mayul mais amul lenn lu bëri bëri bëri dañ ko fiy def waaw comme vergeture bi ni ñu ko tuddee am na fi am na ci ay ay sirop yi nga xamante ni pour ballonnement la am nañu itam ay sirop pour maigrir am nañu itam ay sirop yi yëpp ay xeetu sirop pour ulcère estomac yi pour xam te ne dañu am cholestérol am ay graisse xam nga ñi nga xam te ne dañu bëgg dégraisser seen yaram loolu yëpp daf fiy am ñenn ñi dañu am ay ballonnement de ventre yooyu yëpp dañ ko fiy faral di def ak ñi nga xamante ni pour am yaram pour grossir am ñi nga xamante ni pour maigrir donc yëpp ay xeetu sirop yi nga xamante ni képp ku soxla fépp jafe-jafe boo soxla bio naturel boo ñëwee fii daañu la ci mën a jàppale am na ñoo xamante ni tamit comme ni ma ko waxee sànq ci wàllu ndoxam siti bi am nañ fii tamit ay savon gowe yi nga xamante ni c'est fait à base de gowe ak mbër bëf waaw yi sa yëf la waaw ak bi nga xamante ni c'est fait à base de moringa moringa mooy nebedaay nebedaay moom ñëpp xam nañ ko incha allah am na bi nga xamante ni dafa baax itam pour nepp nepp loolu yëpp dañ ko fi faral di liggéey comme ngeen ko gisee rek boutique bi moom li duuf ci nag bi daal xaju ci tin bi li ñu mënoon wane ak li ñu wax bari na bari na bari na bari yàlla xam na ko bari na même produit Edmark yi ngeen di faral di soxla yi nga xamante ni mooy collagen yi ak ay troika yooyu yëpp dañu am ak ñoom partenariat waa Edmark seen ay produits yëpp dañ koy jaay fii képp ku soxla rek collagen bi ñu ko ñàkk rupture du fi am macha allah ku ko mën a soxla à tout moment am na livraison gratuite foo nekk dañ la koy livré ba fi nga nekk incha allah collagen ak troika ak yeneen yi ci des muy produit ak marque yëpp dañu am ak ñoom fii daal lépp la ñu def bépp produit bio bu nit soxla rek contacter ci 160 93 93 di nga jot suñu ndaw daañu a jàppale ba nga jot ci say produit avec livraison gratuite incha allah. macha allah wax ji leer na te nee képp ku bëgg lu baax rek daw gaaw dafa dafa jigéen soxal góor soxal xale soxal mag soxal ndaw li muy jaay nag képp ku ko jëfandikoo di nga xamante ni nee na ne du teew ñu nataal dafa sonaalu góor daw ndaw tag mbayaa ku ne xam na ne sëñ Modou Lamine Bara Fall ku yàgg ci métier bi mu nekk la amaana bu ci xuusul woon jàll def ni preuve la kenn dootul ko gisati ba tax

dañuy bëgg ko waxtaan a ñoom ci seeni feebar ci seen soxla dimbali leen bu baax a baax a baax en général foofu mooy cabinet bu mag bi foofu la moom moo foofu moo jur lii lii annexe bi macha allah ba léegi nag ñoo ngi foofu mbooloo mi fan la ñuy fekk ñu def seen ay consultation ndax jigéen ñi itam dañu am ay ay traitement yi nga xamante ni ay gamme réparateur yi nga xamante ni jigéen ñi dañ doon xeesal ma seen yaram yàqu ainsi de suite daal foofu li ñuy liggéey bëri na bëri na bëri na bëri sànq rek képp ku rek incha allah daañu dimbali géejawaay arrêt du balees wala nga ñëw ndindi kër galas lu mu ci mënti doon daal man ak samay équipe daañ la taxawu jàppale la ba sa lépp baax incha allah di profité rek di nuyoo sa di nuyu di nuyu waa seetu bi ñëpp di nuyu Aba di rafetlu liggéeyam. ak équipe bi mu àndal.